Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàtte activer walla cloche de notification bi de ngir baña a tardé ci ay vidéo yi ni def ay bi nek. et maintenant bon visionnage sanqal tuuru na yaakaar tas féete le boor ker garab gañu miinoon moo xëy daldi di dëdd ndey faatu sekk wàccub liggéey ci bëccëg bi ñu doon amal anticiper filo fële ci diwaanu Thiès ginnaaw benn waxtu képp ci bi mu noppee ci yooyu la épreuve la sunu borom daldi dogal mu am soog bu méttee metti jële woon ci ay gaañu gaañu yu bare bare bare bare ba tax loolee mooy la ko daal di mujj yóbbu moom Ndeye Fatou Seck bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaaleem ñu nuy xamal li ku bari woon kaf la ku bëggu ni reetaan la foo ko mësaana seen ay bëñam nga daan njëkk a seen moom mii di Ndeye Fatou Seck sunu borom daal di dikk ki mbiram bàyyi ba mu def épreuve anticipée filoom ba génn ca noone la daal di amee accident ba daal di mujj wuy ci boromam di xibar bu dis di xibar bu metti di xibar bu daw yaram ndax ki di ndey faatu sek day bu xamone ni anticipe filo yi moko fi bàyyi bu xamone ni anticipe filo yi lay xaar du mës dem diko defi ji waye laahu sunu bur laahu borom bi ak mbiram nu ko neex la koy defé te jam mënu ci dar di andando ak famem di àndandoo ak ay mbokkam di àndandoo ak i xaritam ak i jegeñaaleem ci tiis wi ak naqar wi di leen ko jàll bu baax a baax a baax waaye di ñaan sunu borom yàlla na ko teeru ci aljanay firdawsi yàlla na ko sunu boroom rëcculoo lu mu doon yàgge sax ci kaw suuf yàlla na sunu borom woyafal suuf ci kawam te rafetal aw layam moom Ndeye Fatou Seck di ko jaalewaat ay xaritam ak ñi mu bokkaloon classe. di ko jaale ay mbokki boppam di ko jaale ay magam ak i rakkam ci sama kàddu équipe bu Sénégal 4 TV bi yëpp ñu ngi jaale famille Ndeye Fatou Seck di ñaan sunu borom yàlla na ko teeru ci aljanay firdawsi numéro Sénégal 4 TV il 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu vous gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg de activé la cloche de notification bi ngir vidéo et maintenant bon visionnage.